bi ñu dans la livraison des informations wa a de la revue de presse ci grand place Walfadjri ñu dégg ne maire bi dafa caxat-caxatee colline bi jaay ko te loolu bu jibee te waa yéen liggéey ñoo amaloon ay jotaay ci assemblée générale loolu dafa ma war tey bu ma taxawee en tant que membre du collectif ma apporter un démenti par rapport ak loolu di wax ne colline bi en aucun moment en aucun moment waaye yéen en l'occurrence tout le monde wax le maire de la commune. Si wax bon la engagé les abords de la commune foofu certes y avait des propriétés privées et toolu jàmbur ñooñu Nous avons wax ne ñoo jël ko ay privé exploité parce que quand on parle de la commune c'est comme qui dirait que nous ci kaw commune parcelles mais en réalité de ça. tundoo yi saa ñu ko demain demain, war a lotissement j'appartiens au collectif Laissez-moi pour la sauvegarde de la commune je ne me soustrais pas de la volonté de waa Qui ci